mu wowoon jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah Serigne Youssou Diop digal ko mu ànd ko ak Serigne Amsatou Mbacke mu Serigne Souhaïbou bu ndigal yi nag mooy tey jii ci bisu àllarba ji bu ñu xëyee li dale juróom-ñaari waxtu ba juróomi waxtu ci ngoon ñu yendoo njàngum xasida ci dëkk bu tedd bii di Touba tàmbalee ko ci jumaa ji ak li ko wër bu feesee ñu dem ci yeneen pénc yi daaru Minam daaru Xuddus ba ci euh, Guédé bu mboolum pinc yi nga xamante ni moo nekk ci Touba ñi nga xamante ni dañuy jàng njàngum kenn ñuy jàng njàngum yëkkati ak kuréel yi ku ci sa njàng wér ñu dugal la ci liggéey boobu ngir bu ñu xëyee jàng ko yendoo ko te sellal ko loolu maanaam mooy ndigal li. waaw loolu bu dee ci wàllu sensibilisation ci biir plateau yi nga xam ne ñi ngi ko doon def ab benn bu ci nekk fàttewaale nañu loolu sàkkoon nañu itam kàddu ñi nga xamante ne ñoo yor wér-gu-yaram ba yaakaar naa plateau télévision bi ñu mujjee def euh, docteur Ndeye Maguette Diop te jiite district sanitaire bu Touba am na leeral yaatu yoo xamante ne def na ko lu bokkal sport yi nga xamante ne def nañ ko ci wàllu télévision yi ak site internet yi ngir fàttali loolu yamu ci itam matuway yep itam <clears throat> yu tax ñu mën ko def jël nañ ko yaakaar naa kër Serigne Touba gi bi ngay dugg dajé nga ak ño xam dañu jox gel nga laal ci sa loxo gis ñu yor ay paquetu masque ngir ko amul masque ñu mën la ko jox kon loolu yaakaar naa euh buñ ko samonté rek gënaaw suñu mom day ak loolu diglé ko hit santané ko fàttali nañ ko dañ ci mën té day melni buñu xolé euh globalement ñi dugg ci biir day melni nit ñi bayé nañu xel mesure bare kon alhamdullah

seen xam-xam jëm na ci loolu te day mel ni ni ñu ko saytoo woon bi ñu déposé seen rapport mboolem ñi nga xam ne ay scientifique lañu nangoo nañu rafetlu seen liggéey ak xereñu ni ñu ko doxalee loolu incha allah ñu ngi séntu ne bu yokkuwul ren incha allah du wàññeeku. waaye tamit mën xam euh, organisation liggéey bi nan la demee ci penc yi euh, bi. waaw ni mu demee mooy jumaa ju mag yi ci lañu tàmbalee sëriñ Amsatu Mbàkke moom fa la nekk. ak lenn ci waa ahlu xasida bu dee fii ci kër sëriñ Tuubaa gi Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké fa nekk ci dalu boppam bi am na fa kuréelu xasida yu koy jàngal ci ginnaaw am na fa kuréelu jàngkatu rajo si boole kooku ñi nga xamante ne ñooy durus ci wet gi am na ñoo xamante ni dañuy bind ay xasida sëñ Tuubaa muy lim bu takku ci ay xasida yu ñuy bind mbindum loxo bind ko maas ko defar ko soo demee bunt kër sëñ Fàllu bunt kër sëñ Saaliw diggëm kër sëñ Ibrahima Mbàkke daaray ak euh, fi nga xamante ne mooy jullikaay it bi foofu fenn fu ci ne ci yooyu ba ci kër Serigne Abdoulaye borom dër bi fu ci ne barab la boo xamante ni ay kuréelu xasida ña nga fa ay kuréelu durus ña nga fa ak mbooloo mu takku boo demee daaru minnam noonu la ñu ko defee daaru xudduus kër Serigne Souhaïbou bu loolu mooy penc yi gën a jege jumaa ji waaye boo demee bu fu gën a sori ba ay mbusoobe ba ay saam njaxate ba ay euh, saamum sëñ baara xuréeja ba ci euh, usine glace fépp fu ci ne fu fi am penc rek kilifa ya def nañ ko ba ci ngiraaneen ànd ak taalibe yi ngir ñu góorgóorlu ci ndigal ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha digle ñu gis ne am na euh, mbooloo mu bëri moo xamante ni teew na ci euh, bis bi ci wàllu organisation itam euh, xeeti bernde yi nan lay mën a tëddee foofu waaw bernde yi moom borom bis bi moo ko digle woon ni mu diglee njàng mi moo digle woon ñu berndeel ñuy jàng njàng mi ba noppi itam tàmbalee ci boppam sax joxe ci lim bu takku mu mel na nag woote boobu dongo yi fekk si nañ ko ci tey moo yaakaar naa kenn mënu koo lim waañ yi li ma ci xam rek man ëpp jege na fanweer te yooyu mooy yi ma xam lu bokkale yeneen waañ yi nga xam ne ay murit ak i kilifa ñoo ko sos ci gox yi ñu nekk wala barab yi ñu nekk wala ay bokki taalibe bi ngir jàppalante ci te yaakaar naa tey ku jaar ci pénc mi du du du du café du du warga du lenn lu ñuy jëfandikoo euh, beñe yeeg yeneen yu ñu mel kon day mel ni foo dem rek ni ko bi digle woon ngir ñu boole. Euh, durus bi ak berndeel ñi nga xam ne ñooy jànkari jël nañu matuwaay yooyu waajal ngeen ko ci ay waxtaan waxtaan yu am solo yoo xamante ne jotaay borom xam-xam la nan ngeen euh, ak itam ban impact war na ko mën a waral ci bis bi waaw dañoo gisoon rek gannaaw xaside la sëñ bi woote te xaside wenn tur rek la waaye xaside lu nekk da cee ne ay tagg ngi ci ay salaat ala mi ngi ci ay zikkar mi ngi ci ay tudd yàlla mi ngi ci ay diyaale diggam ak sëñ bi boroom kon li ci nekk ci ay thème ay mawduwaat bari na ñu gis ne baax na muy occasion ñu waxtaanaale ci ngir ñi nga xamante ne ñoo jëm ci bis bi xam dayoob li leen sëñ bi woo ak yéen njëriñ lañ ci mën a jëlee waxtaanaale ci itam ci wàllu euh, melokaan yi ak teggin ak worooma yi nga xam ne moom la sëñ ñu bëgg ñu sàmmonteeg moom ci bis bi ngir moom lim ñu bëggal siiw